ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla li nuyoo ëmb yëpp yàlla nañ ko yàlla defar bi jaahi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy barke ak jàmm ak xéewal gu ànd ak yërmande suñu borom yaakaar naa mbooleem lu nit di sàkk si àdduna mun taamul barke jàmm ak xéewal gu ànd ak yërmande yàlla suñu borom subhanahu wa mu mel ni ki dajawoon nañ fi ñaan yàlla dajawaat fi yàlla kàttanal ñu ba am am na ñoo xam si diggante bi ñu ngi tëdd ci hôpital am na ñoo xamante ni si diggante bi la xadra xaara ila jiwaari rabbi aw laqad raxalu ila jiwaari rabbihim am ñoo xamante ni si diggante bi yàlla dogal na caabi féete leen seen ginnaaw ak yeneen ak yeneen gàllankoor yu baree bari yoo xamante ne gàllankoor na nit ñi ñu ñaanoon yàlla tasawaat beneen bërëb yàlla dogal ko ñun nag suñu ñaanee yàlla tasewaat fi ay yoon yoon yàlla may ko dañ koy sante yàlla te nekkul xewal gu tuuti xëy suba ba ngoon jot dara dalu la nga yennu ci jàmm fanaan si jàmm billaahi balaa ngay xam njariñam nga ñàkku balaa ngay xam njariñam dëgg nga ñàq nga xam ne li yàlla di kàttanal doomu adama kenn xamul lu mu toll waaw li yàlla di kàttanal doomu adama kenn xamul lu mu di ziar waa rédaction bi yëpp mooy waa télé bi di jël nuyoo gi di ko teg sunu loxo oustaz sunu njaatige sunu lépp si maydaan bi oustaz Mokhtar Sarr mu jàllaleel di ko mbooleem asatisa yi nga xamante ni ñi si daara ji di fi nabbi nabbi ngir yàlla ak diine tax di ziar këru diine yëpp ak kilifa diine yëpp di jël nuyoo googu di ko toog si loxo sëñ Fata mu yóbbal la mu yóbbal ñu sunu nuyoo si kër diine di ñaan yàlla mbooleem luñ fi wàccee si ay kàddu yàlla doon njariñ si yéen ñi koy déglu ak ñuul ñi koy wax su fekkee luy jariñ la yàlla nañu am si njariñ bi su fekkee it luy lore la yàlla nañu ko yàlla mooy tonikuloo bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi mu mel ni ki daje nañ fi ay yoon si seen émission bii di tànnee fu jikko yi ngeen koy ànd ak seen mbokk daara Umar ñing tey jii incha allahu rabbi fas yéene nañu àndaat ak yéen seen émission boobule mu mel ni ki namoon nañ ko ndaxte ku nekk xam na ni kër gi këru diine la su diine soxlaa ku soxla keneen da ngay ñàkk looloo waraloon période bi yi weesu juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jugewaat fi dem place de la nation teewal yonent bi sallallahu wa sallam ak xew-xew yooyu des mooy tax émission yi di am tardement tuuti waaye ñu ngi koy jéggalu xam ni lépp si diine ji la mi ngi noonu tey nag ñi ngi ànd ak yéen si kóllëre kóllëre dëgg soo ko déggee mooy fonk sa kàddu waaw ñi ngi ànd ak yéen ci thème bi te thème bi mooy lan fonk sa kàddu loo wax looy wax rek na fekk am nga yéene pour def ko looy wax rek na fekk pare nga pour def ko mais bul wax dara tamu leen dara jamono jang koy wax pare ko loolu musiba la bul wax dara mukk te fekk jamono jam wax pare woo pour def ko loolu musiba la yàlla nañ si yàlla muccal waaw nit ku li muy wax na fekk ni jamono jam koy wax pare woon na à cent pour cent amoon na yéene pour def loolu muy wax lu ko mooy rek mu def erreur kaddu dafa fort fii woon mi ngi sa gémmañ yaa ko moom mais su génnee mooma toogo arab day faral di wax al xurru xurrun maalam yatakallam nee na nit ki gor la wala boog gor bi gor la fi wax waxul su waxee nag ñi xaaru nan la nan lay jëfandikoo waxam ñu soog ko juge ba xam gor la wala li wax waxu jaam la waaw kaddu dafa ñu ngi koy sàggani kaddu dafa doy waar mbokk moo tax fonk sa kaddu respecter say say wax di dëggu it si li ngay wax di génnee sa gémmiñ lu rafet lu ko waaye jëndee jar tey ñun eh, jar na di di di di xëy suba ba ngoon jot di nàmm sa làmmiñ Seydina Aboubacry radiallahu anhu daan na téye làmmiñam daan xëcc daan ko dóor xëcc ba mu kii mu bàyyi ndax la nee bari nañ ko tudd biir safara ba làmmiñam ko fa dugal bari na ko liggéey ba ñëpp seen ko mu yegg làmmiñ genn kàddoo ko yóbbu si suuf yàlla nañ si yàlla muccal waaw yàlla nañ si yàlla muccal yonent bi sallallahu alayhi wa nee na képp kuy wax na wax lu baax su mënta wax lu baax na noppi moo tax képp kuy wax wax ju ñaaw na jàpp ni moom bokkul si ñuy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax jee bañ bokkul si si ñi nga xamante ni dañuy topp li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle waaw parce que yonent bi nee na sooy wax na wax lu baax na wax lu yiw soo munta wax lu baax lu yiw nga noppi te xam ne musiba boobu ngay wax nga bañ koo wax a gën bëri na ku yegg xam nga lan moo ko yeggal wax ju ñuy wax si kaw lu aza chahlu rijali fa chammiran ila chimatin turdil ilaha walil xayrat tuxrika gis nga bëri na laax koo gis mu yegg ñu koy seen fu xam nga la moo ko fa kàddu bu bon buñ koy sànni mën nañu koo dékku yàlla rekk tax moo tax fu mu yegg tey mu yegg bari na si waaw waaye bari koo gis mu dem ba gaa yi di ko seet gaa yaakaar ni yegg na xam nga lan wax ko kàddu gu bon bu mu wax doomu aadama adduna bi dafa xat jarul yàqante der de jarul sabootante waaw jarul xaste parce que jeex na ba noppi respecter say parole di wax benn wax tey aussi la ngay wax na doon lu rafet lu yiiw la wax na ko mesure xool tey ji suñ ko tegoon sa kaw nan la lay jàppee waaw gën a bon nag mooy mag muy tas dëkk loolu yàlla si yàlla mu cel mag muy tas dëkk moom yàlla si yàlla mu cel dëgg sa yàlla mais wax daal day rafet wax day yiiw mooy lu yonente bi sallallahu alayhi wa digle képp nag koo xam ne wuute nga ak la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle wala la yonent bi sallallahu daan def loo def du ñu c'est ça ku wuuteeg la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle leneen loo defati du ñu bett du ñu bett dëgg fa yàlla parce que des fois a nga naw la tax nga naw ko am na ba noppi ka nga naw la tax nga naw ko am na ba noppi dara dootu ko mën a dindi moo tax kon nañuy respecté suñu kàddu respecté cadre dafa baax Sénégal nag moom bokk na si réew yi nga xamante ni moom gën nañoo doyadal fonk seeni cadre waaw te nit dafa war a fonk cadre parce que si lañ koy xamee su ma la musta gis ma laa xam nga wax ak man benn wax jëfee woo ko damay def attention si damay def attention si yow gaa yi nag fii dañuy fawee loo xamante ni kenn xamul surtout yi aussi di wax loo xamante ni lenn carrément amul na waat billahi daf leen a yomb wax ba pare ne billaahi jàppee ko lu ndaw alors que du lu ndaw dañuy moytandiku la parce que yaa ngi ngeen baam si kàddu gi yéen ngi fen ay fen yoo xamante ni tayuñu wala boog ñun ñoo ngi koy def te tayuñu ko wala boog bàyyiwuñ si xel alors que loolu la nit ça va gën ñaa si yàmm naka mu yow daa ñëw sa kër billaahi daa ñëw sa kër la yow jamono jom jamono jom koy sax kër moo xam naa loolu daa si musa xeexal nit daa seesi ak namm naa la ak dama maa bàyyi yooyu doxul nit ku loo wax na fekk nga pare pour def ko dinaa la seet fa la cent ans nit ki da da ngay taseeg moom exemple la da ngay taseeg moom fii jour korité wala tabaski nga taseeg moom mun na yow na mën naa la gëj naa laa gisee ak si jàmm ça va alhamdulilah mais yow bàyyi nga mun ko noo daal seet bi lay daal seet xam nga kañ ngeen boobu ngeen tasewoon si ngeen tasewaat te même dig bi la lay joxaat tamay loolu même dig bi la yoxaata mooy loolu li gën a yées nag mooy mooy ñi nga xamante ni dañuy dañuy dañuy jël alalu jàmm wax lu nekk pour am ko suñ ko xasee ba am nag pare nañ mbooleem lu ñu waxoon fàtte nañ ko dangay gis ñoo xamante ni dañuy leb nit bor fàtte nañ ko de fàttewu bor sax kenn du koy du ko fàtte dañ koy fàtte fàttelu dañ koy fàtte fàttelu dangay gis koo xamante ni day leb nit nit def dara rek dugal dara wala genre yooyu estati mu ne ko yow dooma lebal si lii nangam ak nangam wala wax mu jox ko avance boobu la koy gëj kii soo moytuwul sax mu sëb bii ko wala mu silence di fàtte fàtte lu bon. te naa benn affaire gis na képp koo xamante ni mi ngi leb bor te du fay ji na xam ni naafiq jikko yi yeneen ci wax si naafiq yëpp daje na si moom. képp laa kuy leb bor fay jikko yi yeneen ci bi wa sallam di wax si naafiq yépp tase na si moom waaw yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam nee na. mandarga yi nga xamante ni moom la ñu xamee naafeq ñett la sa xadasa kasaba ah nit day ñëw waxtaan ak yow ba noppi ne la noonu lebal ma lii billaay dinaa la fay weer bu dee insha allah rabbi nga ni waaw dèjà fen la parce que xam nga lu tax xam na ni carrément mënu ko te du ko fay ba pare nag mu leb la ko wa isa waada axlafa dig na la ba pare te deful la wax nee na la fin du mois yow yaa topp di dóor say estati muy fii di bàyyi des fois mu dugal kii te nag nit ki soo ko yoree yoree bon loo estati mu commentaire donte autocollant sa lay dóor mais dina commentaire loo estati mu commentaire pour bëgg la fàttali borom bi mais da nga koy ko tal waaw isa jàpp di kii moom su ma ko yoxe sama business bi dina ma fay ko topp di nga daanu bari na ñoo xam départ woon nañu amoon départ bu taal mais ay boro daaneel il faut yi ngeen si jàpp foo ngeen si jàpp lu mat a bàyyi xel la te mu bari si jamono ji nit ñaa ngi dem si banque yi di leb ay ay xaalis nit ñaa ngi dugg fu nekk di yore nit ñi alal ju jeex te duñ ko fay te nag dafa bokk si li nga xamante ni ëllëg yoomale xiyaam dina la sauver mooy ba ngay dem nga fexe ba bor boo fi yoroon nga fay moo tax nit warta mu ko ta borom ba mat am nga fay ko waaye laa da am foofu difficulté ah moo tax man ñi su fekkoon su su néew a taxaw balaa ñu koy suuli dañ daan taxaw laaj balaa ñu koy jullee ne kan la ameel bor ñam amee bor yëkkati ku nekk ñu laaj la ku nekk ñu laaj la ñu ni mbokk yi kan mooy jël responsabilité pour fayal ko ay boro kan mooy engagé wu kenn yëkkati loo xam ba ñoom ñëpp d'accord ñu soog a kàbbar jullee néew pour soog ko toppatoo su demee mun a taseeg suñu ngërëmal borom wàcc fi ay bor yu ne xas taxamoo kañ ngay dem bis kon nañu respecté suñu kàddu mbokk yi nañuy respecté suñu kàddu waa fu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula kóllëre gi nga fasan te fas ko si kàddu na nga ko respecté parce que ëllëg yomal xiyam yàlla dalay laajaa ah, dina la woo mu ñëw dana Omar ñi ngi ko la bay du yow yaa yore loon diw bopp waaw mais da nga ko doon waxoon fin du mois mu ni waaw ba ko waxee fin du mois te kan nga trois mois te fayoo ko dañ ko bàyyi xel bàyyi xel te képp kuy leb bor fay wala ngay leb di kii xamal ni jikkoy naa fekkoon si yow jikko yëpp tase na te ñetti jikkoy na ku mu tase si yow yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla muccal waaw beneen bi mooy wa awfu bil ahdi su ngeen signantee nit accord wala ngeen waxante nit dara respecté leen ko seeni rendez-vous dañ koy respecté parce que gis nga dafa am luñ naan luñ naan luñ naan savoir vivre dafa am solo si doomu aadama xam xam xam xam naka ngay dundee xam naka it ban xeetu dundin ngay dundeek ñi nga nekkal dafa am solo parce que dund si la ñuy nawee nit dund du lekk ak naan tudd ak nelaw dafa am façon boo koy defee waaw bu respecté sinon musiba am nit ki li ngay waxal moom defal lu tout ba yow sax bis bu yàlla dogalee la nga waxoon wuuteeg li am mu xam ni xill kii ba nga koy wax amoon na yéene bi tey ba mu jotee def na tous les moyens pour loolu sotti mais yàllaa ko dogalu loolu luñ mën a comprendre la luñ mën a tolérer la mais ñëw fii waat waat ba sonn wax ba sonn nañ la lañ la nga wax yépp semence de fara nga ko teg loolu musiba la a bala réew ma taw da bëgg jën téléphone téléphone kese laa da nga bëgg a jënd mais très rare nga jënd téléphone occasion nan ko nañ la ko waxee mu demee noonu mais alalu àdduna jarul lool alalu àdduna jarul mukk mukk ngay wax loo xamante ni leer nari na exactement loolu amul waaw parce que bakkaaru fen xaalis mënu ko dindi wér laa wax bàkkaaru fen xaalis mënu ko dindi bu yeboo nag lu waaye mun pour yóbbal dara jiital sa yowmal àllaaxira euh, na nga ko def ah Seydina Omar radiyallahu anhu mus na ñëw si armée ni taxaw ne salaamaaleykum ayyul qubuur gars yi ne maa ngi leen nuyu waa yéen waa bàmmeel wala yéen waa armeel ñëpp ne teg mun ko kon ko leen faare leen ma dinaa leen wax lan moo xew seen ginnaaw dërëm bu ngeen liggéeyoon ak nu ngeen ko amee ak nu ngeen ko lijjantee tey ñeneen lekk nañ ko seeni way seeni soxna yeneen góor jër na leen seeni dëkkuwaay yeneen nit dëkkee na leen kenn jug ne ko kon ko wax ñun li ñu fekk fii moo leen lu ñu jiitaloon si baax yàlla fulal nañu ko ba suñu xel ñu defoon si lu bon rëccu nañ ko moo leen lu ñu yeex a def baax tey jii ñi ngi ñaan yàlla mu delloowaat ñu ba ñu def ko kon nag bu yéen ñooñu bu yeboo ngeen waajal lu ngeen mën si lu baax bu yeboo alal yooyu kër yooyu yooyu bu leen ko tal te fexe jiital fii loo xamante ni su ngeen ñëwee moom ngeen di dundee laa daara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha qabla al mawti baaniha in banaaha bi xayrin taaba maskanuha wa in banaaha bi sharrin xaaba maskanuha looloo fi nekk ki la mu la mu la mu la mu la mu construire pour yoomal xiyaam su si loolu lay dëkk léegi nag xoolal jëf yi jëf ba nga yóbbu rek mooy la nga ama ah. te wallahi la azim wallahi la azim lekk benn lekk benn dërëm si ay fen lekk benn dërëm si loo xamante ni dëppoowul ak naka suñu borom subhaanahu wa taala bëggee daraay àdduna jël yal nañu si yàlla mu jël moo tax nit day respecté kàddoom yaa ayyuha alladina amanu lima taquluuna maa laa tafaaluun kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa tafaaluun yàlla nee na pourquoi ngeen di wax loo xamante ni xam ngeen ni carrément du ngeen ko jëf kabura maqtan xoolal rek lu yàlla réer réer kaabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafaalu yàlla nee na bokk na si bàkkaar yi gën a rëy mooy mooy wax loo xamante ni xam nga ni carrément doo ko def waay soo amul xaalis bu lekk bàyyil marchandise jàmbur mu continuer liggéeyam nga noppalu moom mu noppalu la ngay lekk du soo amee soo ko ñàqee du tax mu soo ko amee du tax nga continuer sa dund nga la waay soo ko mënta fay bàyyil waa mu dem liggéey voilà waaw ka ngay jox rendez-vous di ko wax mu yàq liggéeyam ak temps ak yëpp taxaw di la xaar ngan la waa su fekkee pare woo pour wuyu ji ko heure ba nga ko wax xoolaat ko beneen heure l'heure est grave al waqtu ka sayfi fa faal ma tasaahu bihi illa fa innaka maqtuhun an nazar l'heure est grave ki ngay yàq temps wam ne ko dama laa soxla nangam ak nangam wala heure sangam ak sangam mu kurti kurti bàyyi léppam ndax yow mu ñëw taxaw taxaw di la xaar plus de une heure de loolu su la ko baalul xam nga fan nga jëm waaw une heure de nga yàq ko si dund nit si maali foro si taxaw di la patiente loolu musiba la bul ko xeeb am na yu ndaw yoo xamante ni ñu ngi koy dund suñu mais buñ ko xeeb buñ ko xeeb doomu aadama li ko li ko li ko mën a mucceel si bàmmeel yomb na te mooy yërmande yàlla waaye àdduna pour nga dund dund ko tranquille parce que li ngay def nit ñi day refléter si yow li ngay def nit ñi nit ñi dinañ la def waaw soo bëggee nag nit lu la def mu neex la fexeel ba la nga leen di def na nekk lu leen neex ça dire la ngay wax na doon loo mën la ngay def la na doon loo attan la ngay programmer na doon loo pare am yéene pour def ko mais loolu mooy jàmm bu ëllëgatee nag dina am gis nga am na am na exemple yoo xamante ni bis boo ko wanee tey bu ëllëgatee kan ko wan dala si roy waaw kan ko tey jii ni su ma la joxoon Hervé ne la huit huit heures moins cinq ma ñëw taxaw di la xaar ma toog ba neuf ñëw soo ñëwee ma ko saa yi ba depuis huit ba léegi maa taxaw di la xaar te yow xam xam nga ne tamit loolu du yoon def teel a ñëw ñu war a lijjanti lu ñu lijjanti comme ça continuer temps amul bu la waaye maa ngi jégal wallaay boo lëgatee dootul ñëw neuf heures suy tardé lu mu bon bon huit heures dix dina ko fekk parce que servir nga ko leçon loolu musiba la léegi nit kenn kenn fonkootul kàddoom ñu bari si ñun sama classe bi fonkootuñ seeni kàddu respecté tuñu seeni wax te kàddu si la ñuy nawee doomu aadama sa kàddu loo ko mën a rafetal rafetal ko loo ko mën a fonk fonk ko ndaxte al naa xorrun maa lam yatakallam gor gi ngay woote ak personnalité bi ngay woote si kàddu lay feeñee si kàddu lay feeñee te ngeen di moytu di wax lu bari ak sukkuutu xikma noppi xarañte la wax loo xamante ni loo wax xuloo dagga rek loolu du àdduna amul sens waaw nañ fexe nu ñu jaamujee yàlla ak tamit defar suñu àdduna ba mu jag ak tamit aussi képp ku yaakaar suñun pour àdduna am ñu fexe ba jox jox ko suñu borom loolu ëpp solo ko xuloo ak dagga sante ak defante temps boobu amatul loolu dafa xewi temps boobu amatul waaw ah. dafa xewi dagga sante dafa xewi xastante dafa xewi saboote nit dafa xewi amul sens ça n'a aucun sens léegi après loo si gagné lool si gañe da ngay xas nit ña ko bëggoon tee lañ ko gën a bëgg tee lañ ko gën a sopp yàllaa ko dogal du yow ndax su doon sepp xel loolu du am waaw na ku yegg ay ay ay kàddoo ko yeggal kàddu yu salte lañ ay escalier mu yéeg di dem bëri na ku daan ay kàddoo ko daaneel kàddu bu salte la wax mu wàcc fekk ji ko waaw c'est ça góor yàlla yëpp fa la ñu comme nañuy fonk sunu kàddu nañuy respecté suñuy suñuy suñuy suñuy kàddu waaye it tamit lu ñu wax na fexe nañu lépp lu ñu nar a wax na fexe ba mu doon lu rafet parce que wallahi al azim àdduna dafa gàtt de te archive yi léegi lu lu waay def ñu vaar ko yéen a koy wax lu waay def ñu ko maa la ko wax te des fois nag di sóoraale sa njaboot ëllëg daf si am solo am na yoo xam ne soo ko defee yow doo sonal sa bopp parce que li nga war a def def nga ko li nga war a am nga ko daanaka li la dese si àdduna bareetul mais sa njaboot guy ñëw ëllëg ngay sonal parce que di nga am koo xamante ni lam la waroon a yen du loo ko yen sa njaboot lay xaar te doom ñu baree bari ñi ngi fay loo xamante ni bor boo xam ne ñu ko seen maam mi wala seen bàyyi ko liggéey loolu musiba la sooy wàcc na nga sa njaboot loo xamante ni bu ëllëgatee ku mu jëflanteel mu mun koo fay boor ban bor la koy fay yow de sa bàyyi lebaloon na lu baax amoon naa yéen fay ko tey pour am pour fay ko loolu yàlla dogal na ni nekk fii tey dinaa la ko defal waaw mais tamit kazalika safaan bi su amee noonu lay amee safaan su amee noonu lay amee adduna bi dafa xat te dafa gàtt dafa ndaw téeméeri addu dara te ñu bari dundatuñ ko kon nañu bàyyi xel si li ñuy def ak li ñuy wax loolu ëpp solo loolu moo ëpp solo moo tax yonent bi sallallahu alayhi digle lool ne nit day fonk nit day fonk kàddoom yonent bi sallallahu nit day fonk kàddoom waaye koo xamante ni heure bu waxtaanee la muy wax du bokk ak la la am heure bu la diggee la muy la muy diggee du bokk ak la muy def soo demee ba am si moom confiance mu trahir la loolu musiba la te gars yi ngi koy dund di ko def comme ndox fii fi mu toll nii jamonoy dóorante la dóorkatumaatu yaa ngi fees yaa ngi fees dell si réew mi fan lañ jëm réew moo xam ne ay dóorkat kasee fa nekk bopp yu toj dina fa bari moo tax réew mi ñëpp a jaaxle ñépp a jaaxle amul ku amul ku ñi am yàlla jaaxle nañ ñi am àdduna jaaxle nañ ñun ñu ñaari fan lañ jëm ñëpp a jaaxle waaw loolu nit moo koy moo koy moo koy mooy fexe gis nga soo dundee ni la ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa def si sa kent lay kartan dund ni yàlla sunu borom subhanahu wa taala def si sa kent lay kartan xawma kande waaye yow di nga am parce que tranquillité ngay am lu ñëw nga jàppee ko comme ni mu ñëwee loo war a def def ko bàyyi lu yàlla war a def mu def ko da am jàmm da ngay am tranquillité mais su fekkee da nga bëgg a forcer lépp forcer ko sa bopp defal ko sa bopp te yow mënoo dara xamoo dara yeggoo fenn yàlla mi mun lépp xam lépp yegg fépp nga bëgg say génnee loxoom ba mu set da ngay sonn da ngay sonn bàyyil yàlla mu def li mu war a def yow it aussi nga def li nga war a def ñun ñëpp xam nga la ñuy sàkk ngërmaande yàlla jullit bi yàlla bind yaa ngi sàkk ngërmaande yàlla yàlla nag lu mu teg jaam loolu mooy lu ko neex loolooy ngërmaandeem loolu mooy ngërmaandeem waaw réew nag fi mu toll il faut ñun ñëpp parce que ay dóor kat kase fees ñoo fi bari ñi am yàlla jaaxle nañ ndax njaboot gi leen topp ñu war leen a yóbbu si yàlla te gàkk-gàkk yi nekk si yoon bi bari ñi am àdduna jaaxle nañ parce que ñi ngi gën a jiiroo àdduna te xam nañ xel ni leen ñu dem nañu waaj adduna bi dafa gàtt wallahi al azim adduna bi dafa gàtt euh, nañu nañu nañu nañu fonkuwaat suñuy kàddu mu mel ni ki temps bi li si des bareetul daanaka jeex na ñuy ñaan yàlla lépp lu firot si ay kàddu yàlla na ko yàlla def yiw te boole ñu ko ñun ñëpp lépp lu fi njariñ yàlla nañ ko yàlla boole ba ñu njariñ ba ñu jëriñoo ko waaye it tamit lépp lu fi loraange ñu wax ko lu ñu war a moytandiku yàlla nañ si yàlla jiital ak képp ku koy dégg bi jaahi Seydina Muhammad ki doon def waxtaan bi mooy seen mbokk daara Oumar Gningue ngeen am ko fii si télévision mbaggi bi Naby TV ngeen mun ko am par YouTube Naby TV 92 officiel wala ngeen mun ko am site web bi 3w point bi tv 92 point com wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa